yaayo yéene ñu mën a am bii quoi incha allah bi ñoo ngi ñaan daal yàlla ñu yàlla may ndam daal. Ah, occasion yi tamit ñu marqué yi tamit est-ce que ni xaw nañoo métti tuuti ndax léegi-léegi war nañu am bii mais tamit am nañ lu ñu xaw métti quoi ndax Sadio Mané manqué nañu fi trop moom waaw est-ce que moom xaw na fi manqué trop trop trop waaw ah man de wax dëgg yàlla euh, comme ki nga xam ne nii mooy Aliou te mooy coach bi moom lañ teg en tant que sélectionneur mu nekk sélectionneur équipe nationale comme tam moom moo def choix wu euh, teg ay joueur ah man de en tant que supporter bàyyi ma jàppale ko si nga xam ni euh, Aliou Cissé même waa Sénégal ñëpp li ñu bëgg mooy ndamu Sénégal d'accord. en tant que supporter ñëpp xam nañ ni euh, en tant que sportif sax laay wax ñëpp xam nañ ni Sadio Mané est un joueur de classe mondiale joueur la boo xam ne nii euh, kenn mënut weddi ni Sadio Mané bokk na si joueur yi dàq football ci àddina bi. de ce fait bu nekkee ci équipe bu mel ni Sénégal yàlla wërsëgale ñu ko ñu ñëw ba tey yàlla dogal ni dafa gaañu moo ko teree football mondial day nekk d'une part benn regret waaye d'autre part loo xam ne daf ñuy doon benn manque. manque boobu nag feeñ na si terrain bi malgré que ni ñi nekk aussi ñu ngi wane ni euh, Sadio tamit dem na waaye ay yeneen Sadio Mané ñu ngi si biir d'accord. Baydi Baydi Baydi dag may jëlal xale yu jigéen seen supporter étudiante ñu ngi beeli daal. ça merci jàmm. daa man Sadio laa bëggoon mu bi nga gisee Sadio Mané ci terrain bi la lan. waaw moo tax gisoo a triste sawaruma daal. waaw gis nga mënuma kontaan tamit ndax moom laa bëggoon joué mooy mooy loolu moo tax sawaruma sax. Euh, dégg ma. wax na même bu nekkul ci terrain bi aussi encouragé na gaynde yi pour ñu joxe à 100 pour cent kon supporters yi aussi est-ce que duñ def. ah instant bi moom vraiment man moom instant bi vraiment am na courage que ni dinañ gën a ndax ndaxte joué nañ lu nice kontaan naa daal en tout cas. waaw nii laay supporté merci. Sénégal Une direction de qualité offrir un duel à son coéquipier. Un petit peu de prudence. C'était un peu la fin de période. De lire encore, de Lyon. Il faut passer devant, on a vu un chercheur, on a vu les pas on a besoin de tout. Je ne sais pas si la comparaison est bonne, Jean-Michel, un peu risqué. peur, toucher au cœur, vous faites peur. C'est le, le raison d'honneur. Projet, qualité technique, orientation. Euh, Observez. Fernando, euh, si on commence comme ça, on va vivre Vous savez, sur le premier période, nous pas parfaitement fait. Et derrière, on a une équipe qui récupère le ballon. la France avec toutes les difficultés, toutes les décalages, des situations de supériorité numérique. Flou combiné aussi. La dernière, le dernier ballon dans la de réparation, j'ai cru de lire avait c'était une tête plongeante. Même que c'était un mix des deux. En fait, il avait glissé. C'est Un peu comme il veut. Euh, non première mi bi kontaan nañu tamit aussi mais Sadio Mané tamit manqué nañu torop lool daal lañ fi mën a xam voilà manqué nañu daal ci match bi. waa Aliou daal ni mu tegee match bi instant yi comme ça ni mu ko kiyee daal ñun kontaan nañ ci lool mais nag ñu ngi xaal résultat bu baax incha allahu rabbi naa si yaakaar 2 euros incha allah waaw <laughs> ok merci beaucoup. merci c'est magnifique. nañ gën a nañ defaraat kii bi rek gën a defaraat taxawaay rek. est ma que xaaroon nga score xaaruma woon score bi quoi. Non, euh, parce que Cheikhou Kouyaté bon il a bien géré quoi géré na nice euh, mais en tout cas daal euh, ñàkkaguñu coupe bi quoi nañ gën a defaraat équipe bi rek gën a liggéeyaat li nga xam faa yi nga xam ne bon jot nañ koo kii tey ñu gën koo defaraat kon deuxième match loolu du du répété wu quoi. gis nañ ne kii défense bi première bi bi ñu encaissé dañoo xaw a dañoo kii quoi dañoo. kiiwuñu carrément dañoo bàyyi quoi euh, si défense bi waroon na gën euh, a dëgër quoi tu vois man loolu laa si gis quoi mais euh, en global gis naa ne franchement joué nañ quoi joué nañ mais xam nga rek boo naree ñàkk moom dangay ngay ñàkk tu vois mais franchement nice quoi merci. match bi jeex. waaw jaana <laughs> kay non non c'est la fatigue quoi c'est C'est fatigué au dernier moment parce que euh, les Hollandais sont, sont très actifs et très euh, offensifs euh, par rapport à l'équipe du Sénégal. Même, malgré que l'équipe du Sénégal a fait des efforts, mais en dernier, en lieu, donc, les, les heures sénégalais ont un peu relâché. Ah. on nous a battu à 2-0 mais dañuy xaar prochain match mu ngi ñu mobiliser gagner ñun ñoo leen mën a en fait waaw on l'a remarqué mais quand ils ont assuré jël nañ li nga xamante ne moom mooy cette courage de de ne pas avoir Sadio Mané sur le terrain ñoom koy motale bu baax et on a l'impression que ils vont rebondir pour vendredi incha allah. justement ci pression boobu yow nan nga suivre match bi. comment. gars yi c'est la coupe du monde. normal ñun ñëpp dañoo am pression mais quand on a su le pour bañ a am trac et tout comme ko setaane en groupe dina tax stress bi wàññeeku merci. voilà mooy réaction yi ñuy am fii ci fan zone bu nekk université Cheikh Dakar. waaw mais nice quand donc je pense que c'est bon pour un début peut-être que c'était pas facile. Euh, bu leen fàtte ne les Pays-Bas aussi c'était c'est une très bonne équipe équipe de renommée internationale boo xam ne chacun quand même euh, a peur même de le rencontrer. je pense que pour un premier, de un premier début, pour un, pour un premier match, autant pour moi, on apprécie. Donc seulement à la dernière minute, donc seulement ces dernières minutes, donc dañoo gis euh, vraiment mu am ay erreur ay erreur la ñu constaté par rapport ak gardien de but bi. Donc surtout premier but bi euh, je pense que il est allé un peu en retard pour dem pour dem euh, dem kii mais bon c'est un début le Sénégal moom Sénégal moom min na yi donc souvent compétition yi début yi c'est pas facile duñu tenir debout mais bu ñu demee deux matchs yi des am nañ yaakaar ne dañu apporter seen euh, seen kii seen seen dañu apporter seen seen seen seen force pour mun a gagner pour mun a dem le deuxième deuxième deuxième deuxième tour Non, réaction euh, Bon, c'est un premier match que nous avons perdu contre les Pays-Bas. Maintenant, il nous reste encore deux matchs à jouer. Et je sais pertinemment que nous pouvons les gagner. nous pouvons les gagner parce, parce que nous avons l'effectif pour. Nous avons l'effectif pour et les joueurs sont conscients qu'il reste deux matchs et il faut qu'on se qualifie. Il faut ils vont mettre le paquet, Inch'Allah. Bon, pour moi, peut-être qu'il y a, il y a, euh, il le but. seulement il manquait le but. Mais quand même, on a eu des occasions, On a eu des occasions, il manquait le but. Non, moi je sais pertinemment que nous allons nous qualifier. Parce qu'il reste à rencontrer l'équipe de Qatar. Donc nous, peut-être l'équipe semble-t-il, plus faible que l'équipe du Sénégal. Donc nous pouvons gagner le Qatar, Inch'Allah. Maintenant la finale, ce sera contre l'Équateur. Voilà, c'est ça. Et nous avons espoir que nous allons nous qualifier, Inch'Allah. Euh, docteur Ndop Seck, chef des services administratifs du COUD. Merci beaucoup. Eh, amul découragé dégg ngeen gars yi ah. premier match la. waaw noonu a du ñëw rek collectivement ñu ñu ànd quoi mais li ma gisee équipe bi nii am nañu motivation euh, lenn rek moo des quoi ñu ñu ñafe mais je crois que dañuy qualifié man gis dañuy qualifié la xamul lu tax ma Qatar dafa ñëw pour participer rek moom moo organisé mais Sénégal mën na ko dóor Équateur dañ ñaan yàlla Hollande dóor ko Pays-Bas dóor ko bu ko dóoree ñun bu ko jàppee danañ ko dóor man gëm naa ah, ni danañ qualifié mais nañu xoolaat suñ suñ joueur yi nañu xoolaat attaquant bi des na tuuti attaquant bi des na tuuti Sapo Ismaïla Sarr euh, il a tout fait Gana Gueye tamit il a tout Sapo à toute l'équipe kontaan nañ trop macha allah défaite bi métti nañu trop. ak suñu sponsor yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a na ñëpp nelu yéen lu nelu na ñëpp nelu lu tax nelu leen ministère ah na ñëpp nelu di a baax a baax également le groupe yi waxam la rek waxam la na ñëpp nelu moom di nuyu également bu ñu waree nelu rek daañ nelu ñi nga xamante ne moom mooy l'organisation eh, bu ñu waree nelu rek daañ nelu salaamaaleykum ñu ngi fi ñu ngi si jàmm baax kay ah am na lu ñu metti na ndax buñ sañoon dañuy gagné vraiment buñ sañoon dañuy gagné et euh, vu que am nañ défaite tamit nañ dundee yaakaar yenee deux matchs yi ñëw peut-être nañ si génn am nañ confiance suñu équipe juste que parfois manque de chance day am joué nañ moom ils ont tout donné mais malheureusement nag génnuñu si mais peut-être deux matchs yi ñëw tamit dinañ gagné nañ dundee yaakaar yaakaar se fi des on est fort on est fort dañuy dem final incha allah gëm nañ ko te day am dundee yaakaar. suñu xol neexul billaay mënuñoo wax billaay suñu xol neex football bi ñëpp ñoo ko joué à la dernière minute ñu bëgg ñoo gagné tamit dafa métti dafa métti te dafa yomb tamit billaay suñu xol daal neexul daal. Aliou Cissé sa kaw ca kanam incha allah dinañ soxi te dinañ dem final incha allah. Elimane Elimane na dugg wax dëgg fa yàlla. ki marqué neuf buts kooku tamit war naa dugg ci bi tamit dafa dara tamit nañ wax dëgg ah eh Aliou Cissé ngir yàlla rek sa sélection bii paa na jaar yoon jaar na yoon sax mais Aliou dañ koo soxla ci bi na koy dugal waa Pape Gueye beneen yoon na ko teel a dugal Pape Gueye waaw Pape Gueye waaw waaw kay yu yéex a waa mais prochainement tamit na dugal Elimane Ndiaye Pape Gueye tamit mënoon nañ ko gën a teel a dugal parce que bi mu duggee rek match bi am na changement loolu lañ ko am mais tamit am na am nañ opportunité de jouer waat yeneen ñaari match yeneen ñaari match yi dañuy fexe ba nga xamante ne moom lañ deful match bi tey ñu def ko bu ko defee bu ñu yàlla jàppalee dinañ gagné. waaw ah, salaam. waaw bii mooy le 11 virgule 5 gaynde Moussa Camara ay ay wule maama forom waa wune Dirango Samba. waaw donc vélo bi mooy last kili vélo 14 pro max 45 degré 45 diamond gongoron one way air Sénégal Qatar. 14 pro max. waaw vélo 14 pro max comme iPhone 14 pro moo xew donc vélo bi mooy vélo 14 pro max donc en tout cas match bi nekkoon na match boo xam ne voilà franchement du nekkul woon match boo xam ne dafa dafa xawoon yomb ci ñun quoi parce que depuis le début ñëpp xam nañu ni Hollande équipe bu mag la. c'est une équipe qui était très disciplinée. Voilà, tactiquement, wala physiquement, donc ils étaient à la hauteur, mais les euh, Sénégalais tamit, ils n'ont pas démérité. xam naa peut-être chance bi moo ñu sourire mais dañuy jéem a concentré ci yeneen match yoo xam ne ñoo gën a capitaux ñu des donc ñu jéem a gagné ñaari match yooyu jéem a espérer incha allah une qualification au huitième de finale te gëm nañu incha allah coupe bi mën nañ ko jël am nañu capacité physique bi technique bi tactique bi incha allah dañuy xaar rek Aliou Cissé def lu mu war a def rek euh, les lions tamit def li ñu war a def ci terrain bi pour ñu mën a jël ndam incha allah. d'accord sa 14 max bi lu la inspiré. 14 pro xam nga vélo bi vélo la ko donc chaque année day am évolution chaque année day am mise à jour comme yeneen produit avant avant 14 pro 13 14 pro max bi di génn 13 pro max la woon donc comme ne 14 pro max dafa génn ci moo tax vélo bi tamit def mise à jour 14 pro max. Euh, instant la 6 millions waaw 6 millions. waaw 6 millions la waaw. vente aux enchères nga koy def. ah. ma ne vente aux enchères la koy def. waaw waaw vente aux enchères la 6 millions mais comme troc la quoi parce que vélo bi kenn amul njëgam. waaw même Bill Gates mënul jënd vélo bi. waaw parce que vélo bi deux ans ne la deux ans c'est-à-dire deux choses dans une même chose. vélo bi lu muy renfermer vélo bi ci boppam ak Sénégal donc Sénégal 17 millions d'habitants donc kenn mënu ko jënd. donc moo tax ma ne Bill Gates sax mënul jënd vélo bi. donc xam naa peut-être trop la ñu mën a sax soo ma mën nga ma jox dërëm ma jox la vélo bi comme mën nga ma jox 5000 francs ma jox la vélo bi trop la mais kenn nu ko jënd Bill Gates sax comme ni ma ko la waxee rek mënul jënd vélo bi. Euh, bon état du Sénégal su buggee waaw je suis sénégalais je suis fier des sénégalais donc euh, je suis un supporter sénégalais donc voilà su fekkee état du Sénégal bu bu dee mën naa ko jox mën naa ko troquer waaw. Moussa Camara aka ay wule mama forom wa wune Dirango Samba Moussa da ngay def nank ñu yeggale interview bi parce que li ngay wax aka eg bi Moussa mun nañ xam ci lan lay yëngu à part tey profilu supporter bi mu ñu génn donc man ci restaurant laa doon liggéey mais malheureusement depuis quelque temps euh, restaurant bi dafa xawoon taxaw quoi donc rond point rond bu nekk taatu almérie bi foofu laa doon liggéey restaurant bu ñu wax euh, Planet Food donc borom kër bi moo ne dafa soxla kër bi quoi effectivement waaw moom laay seere quoi ci tourisme département tourisme laay génn donc am sama licence mais instant bii comme ne dëgg bi dafa a kii donc ma recherche boo xam ne voilà restauration ci wàllum restauration comme ne tourisme ci c'est transport hébergement restauration ak partiellement animation donc du coup ci restaurant boobu laa leen liggéey comme ni ma doon waxee donc voilà dafa xawoon taxaw instant yi pour des raisons de travaux donc voilà incha allah moo tax affaire bi xaw taxaw mi moo jéem a profité voilà bégal supporter sénégalais